mbokki Médina mi ngi noonu ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi fii ci rue 41 ñëw fekk fi Mor Yacine mbaru askan bi Mor Yacine doomu Médina tey ñu war a ànd ak moom gunge ko mu dem arène nationale yàlla na ko yàlla mbay ndam ci diggante moom ak Uncaay Mor Yacine di xale bu am di xale boo xam di champion mbokk yi ñu ngi tàllal loxo waa Médina ngir ñu ñaanal ko sunu borom may may ko ndam incha allah rabi ñu ngi à la rue 41 nii mu war a départ fii du 41 jëm ci ci arène nationale incha allah rabi dinañ leen dégtal lépp loo xamante ne xew na rek dinañ leen ko dégtal fii ci biir Medina TV ak ci ñu dem Saal. Sones na nga def na nga def nooy waajee combat bi. combat de gis nga nii lañ koy waajalee de barke Serigne Touba te ndam dong lañ ci soxla papa mag sama papa ñoo bokk ndey ak baay deful lu dul yaru baax respecté nit jox ñëpp cër. ñun daal defuñu lu dul ñaanal ko yàlla ak yonent bi Serigne Touba Mbacke ci barke Cheikh Issa Dieng mi yaakaar yàlla na ko suñu borom may ndam. añ daa yéex bari waaw añ yee ngi nii gis ko ñoo ngi ci kawam heure bi waroon na pare bu yàgg loolu mu am na moom mais temps bi rek mais saa bi pare naka affaire yi ça va bien waaw combat laa koy waajee di ko ñaanal yàlla may ko ndam bu seddu guy si barke sëñ Dina Mouhamed barke sëñ Fallou mi sëñ maam Cheikh mi mu yaakaar mënuma wax nag fi mu nekk dama sonn dama xaw feebar mais maa ngi ñaan yàlla yàlla may ko ndam. mbokk yi mi noonu yàlla na ko yàlla may ndam Modou Yacine suñu champion boobu. alaaji ale alaaji ale kaay alaaji ale kaay alaaji kaay wax ci champion bi alaaji Modou <laughs> ale sa doomu ndey mooy bëri tey ay nag ngeen waajee combat bi waaw ah, ñu ngi koy waaj ñu nga waroon waajee rek xam nga metti na trop gaan mais yàlla tey la ko dogal quoi xam nga ah, waaw waaw <laughs> Ounthia dafa xamul rek dafa xamul quoi mais tey waa Medina dinañ ñëw ci kaw non non du yomb xamante nañ ko ah. ne nañ ko signature bi na indi ñeexu ñeexu ñeexu limon bi pour euh, kii wu ñu toggal na la tuddati waaye dafa ne daf ñu toogal kii kaldu kaldu waaw dinañ ko indaalal ñeex bi. mais est ñu koy xaar. waaw ñu ngi xaar bu baax a baax non incha xam nañ loolu xam nañ loolu bu baax a baax. Ah. xam nañ lool bu baax a baax. ci biir te méttil ko ci waaw amul amul ragal. waaw du yow bu yombee rek baaxul bu yombee rek bëgguñu. kon ñu xaar leen. tous tasar. ñu tasar waaw. <laughs> nga def moo ñu jàngal ba ñëpp sant yàlla alhamdulilah ñu ngi lay ziar sant alhamdulilah man maay Thiamas bu Faas waaw waaw Thiamas tànk yi ñi samay raq lañ fii laa dëkkoon mais dama déménagé Nord Foire booy bi champion dafa nekkoon si yoon nag mais xam nga ca da ko jàpp waaw mais léppay baax lépp ñu faas waaw booy tolaguñ fen tolaguñ fen ay booy ndaw lañ lu yox si Modou Modou champion la ndaanaan la yaa ngi dégg booy bi muy bëral du moromam sax moo ko jël si làmb fuuf waaw waaw lamba tëradi rek moo tax jël ko lépp tous les plans tout tous les plans Fass ak Medina ñoo bokk ndey ak baay écurie Fass mooy écurie Medina loolu nongoloo moo ko woy mbapatu Fass moo ne waa Fass ak waa Medina ñoo bokk ndey ak baay boobu ba léegi loola booy dund ku fi ku dëkk Medina bëgg nekk mbër boo dugul Fass da tax ngemb maanaam mën nañu toog si loolu yàgg na amul jamono te ñëw sax lépp jeex na pare nañ fépp ah. tous les allahu moom ak arafas bi bëytam yàlla nga yàlla may ndam la set ñu ne dafa ngi noonu waaw grand maa ngi lay ziar def grand sa mooy bëri tey Modou Yacine champion bu mag bi lan ngay wax ci loolu waaw di ko ñaanal yàlla rek di ko wax que ni waxuma man waxuma xale yi mais Médina ñu ngi ci ginnaawam parce que c'est la Médina qui gagne comme ni ñu koy defee chaque fois rek préparation lamb bi defe naa li ci waroon yëpp def nañ ko parce que ñun ñëpp jàpp nañ ci dugal nañ ci suñu doole dugal nañ ci suñu kàttan ba pare ñu ngi xaar daal waaw te ñu ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax a baax waaw jàmm daal lañ koy yéene ak salaam waaw amin amin yàlla na ko bëri ci jàmm daan ci jàmm ñëw ci jàmm ñu jubilé ci jàmm eh, wax naa Ndiaye mu jël billet yi naa ko depuis démb mais parce que yow yaa demul envers lui bàyyi demal Ndiaye grawul waaw Medina ñu ngi lay jaajëfal. waaw maa ngi jaajëfal waa Medina. gis nañu taxawaay bi nga am ci jërëjëf xale yi ñu ngi koy wax jërëjëf. yàlla na yàlla yokk la. amiin man Medina rek ma ñor. rek rek rek moo ñor leneen ñoruma. mbokk yi mi noonu. te yéen tamit seen chaîne bi yàlla na dem ca kaw a kaw. allahumma na gën a kawe chaîne yëpp. kontaan naaj ci trop. mi ngi noonu Medina rek moom moo ñu ñor gis nga Saliou ñu dem seeti benn mbër ñu dem seeti Ada Fass Ada ñu ngi lay nuyu bu baax Ada ñu ngi lay ziar bu baax. delloo ziar. bu baax baax sant bu baax baax. mbër waroo seet tey te ni ma la gisee dafa mel da nga seet. non moo ko xalaatuñ ko. barke sëñ Ba non garaaw la saa yi mooy loolu dañuy dañoo nekk si bis dañuy waayal dañuy waayal dañuy waayal. waaw waaj nañ bu baax. sa waay moom saa yi moom suñu xel dal na quoi ndax nag teg na ko si yoon bu baax a baax a baax barke sëñ Ba ma dina dem jëli rek ñëw. feere ko incha allah ci kattan suñu borom incha allah. incha allah loolu la def day dem jëli ndam di ñëw ndax tey sa waay liggéey na ko liggéey daj na ko bu baax a baax a baax barki sëñ Bamba. ñoo ngi waaj bu baax ñoo ngi suñu bis la set incha allah di ñaan yàlla ndam. ñëpp teewal ñu barki allah si kattan suñu borom waaw di ko ñaan yàlla bu baax a amiin amiin Kene. Ada Fass la woon fii rue 41 angle 23 fas yéene ñëw jàppale doomu ndeyam rakam frère am Mor Yacine ñu dem Saal. waaye Zal Zal sang ba léegi maa ngi dox Zal ñëwal sang Zal ba léegi maa ngi dox Zal foog mu ñëw ñoom ñaari kudd sang ba léegi Zal dama bëgg nga jël ma li ci combat bi la ndax ma mos ñaari kudd ñëwal ma xool jël ma jël ma Zal nii la ñu koy defee ñun Medina dañuy bëggee rek amuñu benn problème ñun doomi Medina yi jàmm rek la ñuy dund nii la ñu koy defee ànd ak mbër yàlla na ko yàlla may ndam ma xool mu ngoog ñu mer na nga def kii suma yaay la yaay Modou Yacine sunu yaay mer ñu ngi lay ziar bu baax mer sunu rak Modou Yacine am bés mag tey yaay nag nga waajale en tant que waajur ah man de wax dëgg sama wax dafa bari ndax man mënu waaw Modou Yacine daa dem koy ñaan yàlla yàlla may ko ndam bu seddu ak lu ko jik ak lu gën ci moom ci barki maa ngi koy ñaanal nag di ko gërëm di ko sant xam na yaam xam na papam xam na ay makkam xam na ay rakkam ku ne jox na la cër ci barke yonente bi maa koy ñaan yàlla ko ndam lu seddu guy te lu gën ci moom ak lu ko jig ci barke yonente bi na ñëw soxna def tante ñu lay ziar tante ñu ngi lay ziar nag ngay waajal combat. ah ñu ngi koy waajalee nii rek bëgg ndam rek te di ñaan yàlla yonent bi sëñ baa may ñu ndam ci barke sëñ Modou Saliou Fall yàlla na ko yàlla may ndam lu sedd guy te mu ànd ak jàmm ànd ak salaam ci barke Serigne Saliou. moo Modou ku baax la ñun ñi di tàntaam de ku Modou ku baax la ku yaru la te lu mu am bokku na ko ak doomu aadama yi loolu nag yàlla rek la tax may wax lu mu am bokku na ko doom doomu yi man mi su fi ñëwee lu ne la may defaral. xale yi moom ñu ko taxawaloo macha allah rafet na jekk na macha allah. mi noonu mbokk yi suukar sa suukar la dàqee Médina la ñu am Médina la ñuy bëggee ayca ayca ñu dem. mais ma ñëw ak Kesal. jël bii. mbokk yi mi ngi noonu ñi ngi nii di xaar Mor Yacine incha allah yàggatul ñu ànd ak moom gunge ko dar ko ba biir ñaan yàlla sunu borom may ci barke yonent le pensionnaire de Fass Benno Mor Yacine. papa ñu ngi lay nuyu bu baax. papa naka yitte yi papa est-ce que mën nga ñu wax tuuti rek ci Modou. ci Modou waaw na ci lu ma ci mën a wax de. wax dëgg yàlla xale bu am jom bu yaru la. bu am avenir la. respecté li muy def. waaw respecté na li muy def xay na yàlla ci wàllu boppam daal mooy mooy ki nga xamante ni moom mooy aji ki maye waaye maa ngi ñaan ci kàttanu yàlla ak barke yonente bi ak ñaanu bàyyi ma liggéeyu ndeyam yàlla may ko ndam lu sedd guy mu jikko ci barke Seydina Muhammad parce que suma doom la waaw parce que suma doom la comme suma doom ah, maa ko koy ñaanal bu baax baax bu fekkee ne ñaanu baay nangu na dina indi ndam incha allah. yal na ko yàlla may ndam mi ngi noonu ñaan gaa ngi noonu loolu la ñuy xaar suñu borom rek moom mi dara tawul ñu ngi koy ñaan mu may ñu ndam moom moo am ndam yal na ñu yàlla may ndam jël nañu lépp teg ko ci loxoom moom suñu borom yal ñu yàlla may ndam mi mi ngi noonu sabar yaa ngi waaj a jiiñ mi ngi noonu Alaaji Saaliw sawar yaa ngi waaj a jiñ Alaaji Saliou dama nga jël ma fii tuuti rek ñu bëggal fan si sawar yaa ngi waaj jiñ Alaaji Saliou tey bés bu mag la bés bu mag la Alaaji Issa mi ngi noonu yaa ngi waaj a jiñ maa ngi ziar kenn ngi lay ziar. nag yi tey. sant yàlla yaay kan. man maay El Hadj di entraîneur u écurie waaw ci fulla ak fayda ak jom. di ko xamal ne ko ñu topp ci gannaawam ñëpp xaru nañ pour mu am ndam su ko bakkanam jaralee pour mu bàyyi ko ci làmb ji na ko def tey parce que loolu lañ soxla mu indi ndam bi te dañuy ñaan ci kàttanu yàlla yàlla jox ko ndam. bu dee saay-saay aussi tamit ah, saay-saay dafa am foo ko yeew rek boo ko yeew daal di ko fa bàyyi. maanaam na jàpp na. waaw nañu ñu ñaanal rek. ñu bokk ñaan yàlla nangul ñu ñaan yàlla na ko yàlla may mu ndam ci barke ku am yar ku am ak taalube ku yëg nit ku gore loolu moom xam naa ko ci moom loolu moom xam naa ci xam naa ko ci moom te déggal na ma aussi te jox na ma ci rubaay loolu moom gis naa ko ci moom ci barke yonent bi merci beaucoup waaw ñoo bokk écurie waaw ah, ñu waaj nañ ko comme niñ ko war a waajee ko ak yeneen combat rek di ko dama leen gis ngeen sedd nii teen waru leen ñu sax ñu ngi koy ñaaral moom non ñu ngi koy ñaanal ndam moom ndam rek incha allah liggéey lañ li ñu war liggéey. fii ne nii tàllal nañ suñu loxo suñu borom rek di ko ñaan yàlla yàlla nga yàlla may ndam rek incha allah. sang bi na nga def. ñu ngi leen nuyu bu baax. noo tudd. Modou Garga. Modou naka. Garga. Garga nga ci Modou. Modou sama waaye la ñoo bokk écrit ñun ñaar. waaw di préparer combat bi. am ci mbër. non am nañ yaakaar ci man combat yi mu doon bëree kii bokkut ndax bii dañoo liggéey. oo tax bii moom dañoo liggéey dañoo xam fi ñu jógee xam ko dañoo ci defet nag ñu liggéey quoi liggéey tey ci lépp nag ci wàllu xeex ci wàllu bëri ci wàllu mystique lépp pare nañ ci. ñu ngi bi mooy na ñëw rek. ci jàmm ak salaam ñu daan ko jël bu rëy dem ñibbi ci kàttan suñu borom bu neexee yàlla ci lépp pare nañ arbitre bi suble rek génn seen diggante dañuy xaar ci kàttan suñu borom jaajëf Bawa. Isa. Tamul Major Père nga def. sama dafa mel ni yéenay géwélu Modou Yacine. waaw waaw ñooy géwélu Modou Yacine. naka ngeen di waajee combat bi. comme ñu ko doon waajee rek. comme ni ñu ko doon waajee rek Modou mu nekk ku baax nekk booy bu baax. sa combat dañuy bàyyi lu ñuy def yëpp ñëw jàpp ci. te nit moom amul lu sa mbokk. moom bu amee combat dañuy ñëw jàpp ci ba mu neex yëngalal ko fii ba mu neex. waaw. bàq yu bees yi. waaw bàq yu bees yi waaw lu bees lu ñu préparé. lu bees tàq. lu bees tàq xam nga moom chaque chaque chaque combat ak lu bees luy génn. Euh. waaw waaw. kon mën nañ ko xaarandi ko. mën nañ ko xaar. ba balaa muy dem stade di nga ñu si may. moo dañ koy mos léegi léegi. balaa moo di génn waaw. kon incha allah rabi Saliou. waaw lu bees tàq. la gars yi andi. ñu taaxirlu tudd ñu andil ñu ko.

grand bi naka mu yaa si yi ñu ngi xaarandi ko ba tey ñu ngi fii ci rue 41 angle 28 ñu fekk si sunu frère Modou Yacine ci combat bi war a dox ci diggante mag Uncaay mu waree amee fee ca Pikine nationale ñu ngi fii di ko xaar li mu génn pour ñu gunge ko yóbbu ko ba biir stade ñaanal ko yàlla. sunu borom mi dara tawul may ko ndam géwél yaa ngay dugg géwél yi jëm nañu jël jël nañu jël géwél yaa ngay waaj mi ngi mel ni waaj jël na galañ bi am na lu muy ñaan di ko tëbb ci di ko tëgg ci sabar bi géwél baa ngay ñaan géwél baa ngay ñaan ma ngay ñaan ci galañ gi ma ngay ñaan ci galañ gi cey làmb cey lamb ak i bagaasam ma ngay ñaan ma nga ñaan ci garaj ma ngay ñaan Aziz dama xamul looy wut ci làmb da ngaa sopp rek waaye yaa ngi gis maa ngi gis lu ma mës gis ña ngay ñaan ci sabar bi jël nañu garañ gi mi ngi noonu mbokk yi dem dem na dem na dem na waxoon naa ko damaa sopp rek mbokk yi waxoon naa leen ko. yëgal waaw cey ba noppi waa ji jël na lamine ba fóon na sabar ba fóon na sabar ba cey làmb mbokk yi làmbaa ngi noonu mbokk yi làmbaa ngi noonu mi ngi naan li fekkee na nga yi kii ma taxawal mag la ci Modou ci ci Modou la ci mbër naka en tant que frère Modou Yacine naka ngeen di waajale ko. waaw Modou koy ñaanal jàmm rek avant tout ndax Modou luñ xam si na boo gisee Modou xam liggéey na si ko ñaanal ndam. ak mërëm mu am jàmm moom tamit yàlla dafa leen ndam Modou daan ko jëloon seen wicc ñu wàllu Médina gi ñu féete ko baak si Touba. mbokk yi mi ngi doon waxoon naa leen ko. sabar yaa ngay jiñ sabar yaa ngay jiñ mi ngi noonu Aziz da rek waaye di nga dégg. Samb. Samb dama daam lu ma la gis léegi nga am loo def. waaw Samb loolu lumu. loolu mooy balin baa balin dëkk boo dem defe nu na weng. waxaatal balin Kuba balin dëkk boo dem defe nu na weng. waaw dégg loolu waaw loolu loolu loolu ay ay affaire la. Ah. waaw. moog lamb ñoo ànd. xam nga lamb lépp loo gis daam lu mu àndal. te balaa ngaa te balaa ngaa def dara dangay dangay da ngay woote ba pare léemu ba pare moo taxit tey ñu tëgg ko galañ bii. moo tax ñu ne la sabar bu ne daa am la muy wax. waxoon naa la ko fii léegi léegi. bon. waaye tàmbale naa ko gis. tey dinaa woo ñëpp. lu bees laa bëgg gis nag. non lu bees dañuy dañuy ba pare soo ko def lu. Jey Samba. waaw gaañ a ngay ibbi gaañ a ngay léemu ña ngay léemu mbokk yi ña ngay léemu xale yaa ngi ne di yi mbokk yi luy daw na yaram yal na ko yàlla may ndam sama xel dem na ci champion bu mag ba Gris Bordeaux doomi Medina ba dem na ci Diène Kaïré dem na ci bépp doomi Medina boo xamante ne yaa ngi bëri Ibou Afia bàyyiwuñu benn doomu Medina Seraa Medina amuñu leneen lu dul Medina mbokk yi ña ngay tàggu mbaar cay suñu xel dem ci champion ba Gris Bordeaux Mor Yacine yàlla na ko yàlla may ndam wax naa ne amuñu lu dul Medina Medina la ñuy bëggee Medina la ñuy ndamoo Medina la ñuy tiitaroo dafa ni mbër dafa mel ni mbër a ngi waaj a génn dafa mel ni mbër a ngi waaj a génn sa oto ba ndox jël nañu ndox jël nañu ndox sa oto bi mbër naka ngay waajee combat bi. waaw ñu ngi koy doole parce bés bi suñu bés la suñu ami de guerre moo xewle tey jii quoi il faut ñu waajal ko xam nga di ñaan yàlla nag may ko ndam parce booy bu séeréer la booy bu gëm nit la. parce que ñun lii lañ am ci moom a taxawal ko bésam yàlla may ko ci ndam parce que ñun saa su ne xam nga dañuy bëgg a mbëru Fass Benno di am ndam te aussi ñu ngi woo ñëpp képp koo ne muy yeewoo Medina fii mu ñaanal ko parce que moom bésam bii la am buñ ko ñaanalul yi dem xam nga mën na ko gisee neneen na ko ñëpp ñaanal Sénégal monde entier ñu ngi leen di ñaanal a ah waaw mbégte rek mbégte parce que man bu ma naan génn laa ma nii laay mel. man man la ñuy wax BMW man bu may génn làmba bu ma gisee nit ñi daa am benn xadar buy nee ci man du ma gis dara lu dul lekk nit ki doomu aadama noonu nga war a mel nit ñi buñ la teewalee yow yaa gis am xadar boo xam ne xam nga ku taxaw si kanam da nga naan yaa ko mën loolu mooy làmb. maanaam pare ngeen ci aspect yëpp. waaw pare nañ ci aspect yëpp kontaan. waaw kontaan na def na lépp préparé na mystique te dañ la mbër balaa ngay neex a ñaanal nga entraîné te moom entraîné na yàlla def na na xoolal pare nañ ci benn bépp côté. bu yàlla defee incha allah ndam li dañ koy indi fii waaw parce que loolu moo ñu ñor ndam li rek ñëw. amin waay yàlla na la yàlla dégg. waaw waaw maintenant ñu ngi koy xaar. bilaahi waaw nañ tàllal seen loxo yàlla baax na. incha allah yàlla da koy may ndam. bilaay walaay xale bu yaru xale bu teey bilaay Modou xale yàlla Modou xale bu am diine bilaay loo wax ci moom du doy bilaay amin waay amin waay jaajëf waay Alioune Tine mbër. waaw mais ziar. mbër ñu ngi lay delloo ziar bu baax. mbër sa doomu ndey mooy bëri tey. waaw loolu dafa leer Modou lan nga yëg léegi léegi bi nga bàkkee lan nga yëg. damaa kontaan sama dafa dal dama kontaan sama xel dal baax a baax baax parce que moom Modou mun na andil waa la leen mun a andil parce que bu fit la lamb lamb loolu fit moo koy joxe ci lamb te fit boobu mu ngi moom. bëre moo koy joxe te bëre boobu mu ngi ci jom moo koy joxe te jom boobu moo tax mun na apporter Médina lu nekk. yéen ñi bi forme bi naka ngeen gisee forme bi. dafa internet normal dafa internet dafa daj coono parce que man bu jaadit combat yëpp man maa ko yóbbu depuis bu muy bëree Thiès maa ko man kese ma fa nekkoon ci mbër bu mag ma daj ak moom coono bu ci nekk man Modou Yacine mun naa wax ci moom lu nekk li ma xam ci moom amul ku ko xam. kon lan ci ay loo yokkuwoon ci ay Alioune Tine. non mën na mën na lu ne. billaahi barki yàlla mën na lu ne. maanaam mën nañu taloon mën nañu lal basang. bu leen neexee da ngeen a war a lal basang. da ngeen a war a lal basang te da ngeen siy tëdd. xaar ndam liy ñëw barki alxuraan. yàlla ko yàlla mbay ndam. jërëjëf mbër. mbër na nga def. waaw naa si rek bàyyi. mbër noo tudd. plateau bu Fass. yaa ma gën a xam. waaw dama leer. ñu ngi koy waaj a teg ak dal di ñaan yàlla suñu borom ki nga xam ne du kenn te kenn du moom yàlla nañu yàlla suturaal yàlla may nu ndam Baye Fall moo borom baax la quoi bilaay walaay dafa sonn ci combat bi ku ci dañ koy teg lu métti gars dañ koy teg lu métti bilaay walaay moo ndam rek la ko war war na Serigne Touba te ñu nga koy ñaanal waaw Modou duñ musul ñàkk forme gars yi duñ ko ci loolu bilaay walaay Fass Benno liggéey rek xam di nga bii mooy suñu première sortie yàlla ñu yàlla ci doole Cheikh Ahmadou ñu demaat tuuti ci ambiance ñu demaat tuuti ci ambiance mbokk yi mi ngi noonu dégg ngeen géwél yi man mi dul mbër sax sama yaram daw na mbokk yi Modou waxoon na dana saf ña ngay ña ngay jël saaku xorom di ko warale oto bi ña ngay jël saaku xorom di ko warale oto bi waa Saliou wi lal dafa mel ni xorom la gars yi yor Modou waxoon na ne dina saf sàpp ak xorom firnde baa ngoog ña ngay jël xorom ña ngay xorom oto ba ña ngay xorom oto ba ña ngay xorom oto ba ña ngay xorom oto ba cey cey xorom mbokk yi yaa li daw na yaram yaaja ngi ci buntu kër gi yaaja ngi ci buntu kër gi yaaja ngi ci buntu kër gi mbokk yi yaaja ngi ci buntu kër gi ma ngay ñaanal doomam diggante yaay doom mbokk yi diggante yaay ak doom diggante yaay ak doom la Médina TV chaîne bi nga xamante ne moo leen jox li ngeen bëgg heure bu ngeen ko bëggee ak nu ngeen ko bëggee ak fa ngeen ko bëggee la Médina TV la chaîne leader télé bi nga xamante ne moom la nit ñi seetaan. waaye déggal coach déggal coach la xale yi naan ca bàkku bala ca bàkku bala la xale yi di wax loolu la ko jàppee de boo jegee ay ngéwél foog nga ngéwéle tuuti bu leen ko jàppee waaw alaaji jibi taw waaw waaw waaw dem nañu asikoobu Thank you. mbokk yi mi ngi noonu yéen a ngi fii ci Médina rue 41 angle 28 ñoo fekk si sunu frère Modou Yacine si combat bi war a dox ci diggante moom ak Um Thiaay mu war a amee fële ci arène national Pikine ñu ñëw ngir gunge ko taxawu ko ñaan yàlla yàlla may ko bu sedd guy mbokk yi lii daw na yaram gis nañu Médina foo ay jóge ñëpp waa Dames ñi ngi fi waa Kosum ñu ngi fi waa Déggoo ñu ngi fi waa Pété ñu ngi fi Guy Sarane sàcc ba kenn desul mbokk yi lii mooy Médina am lii mooy Médina mbooloo ànd nekk benn Médina yàlla fi yàlla def jàmm. mais noonu mbokk yi lii mooy Médina ñu ngi leen di yëgalaale le 2 juillet allahu rabi ci mode tabaski boobu nga xamante ne sunu frère sunu doomu ndey Ismaïla Ndoye ñu gën ko xam ci ISO muy amee fële ci en face banque BCEAO ñu ngi ci woo doomu Médina yëpp ndax it doomu Médina la di xale bu am jom xale bu bëgg liggéey muy Ismaïla Ndoye ñu gën ko xam ci ISO nekk fii ci biir Médina TV di fi liggéey. Euh, taxawal loolu muy moto qualité ñi ngi ci woo mboolem soppe boo xamante ne tailleur nga ñu ngi woo ci événement boobu nga ñëw fekkee ko ndax am na lu am solo luñ fay wane ci lu bees am na ay invité yoo xamante ne incha allah rabbi ay invité surprise yoo xamante ne danañu fekkee bës boobu mi ngi noonu ñu ngi leen koy yëgalaale muy am le 2 juillet ci cokkeer lay amee incha allah rabbi mbokk yi mi ngi noonu lii mooy def fierté Médina soo ba ne xarit daf ma woo ba ma ñëw mënu ma Médina ni ngeen dundee daf ma neex yaraax la dëkk mënu ma Abdou lu mel nii bëgg naa ko def biir yaraax ndax Médina da ngeen bëgg a jàmm Médina da ngeen bëgg a dox mbokk Médina boo fi nekkee boo boo feebaroon sax doo yegg sa feebara ndax ambiance bi dañu koy teg ci yar teg ko ci yoon boo séenee sa morom rek li looy ñëkki ba ñu ngee ñëkki seen ñi yéene sa morom jàmm Médina yàlla ñu defal jàmm lii la ñu xam nay neex rek li ko xale yi waxee noonu mbokk yi gannaaw le 2 juillet sunu bésu màgg boobu dañuy yem bésu tamxarit bésu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne Kara Moto Events moo koy taxawal mbokk yi bés boobu nag ba màgg la mbooleem ku ñu dégg ngay tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di bëggee yonent bi di nga ko fekkee Mouhamed Alla Diop ma nga ca Serigne Sambouk ma nga ca euh, Modou Modou Bey Afia maa nga ca ak képp koo xamante ne yaa ngi tagg yonent bi am tur fii ci biir réew mi da nga fekkee bés boobu bésu tam xarit la bésu jullit yi la ñoo ngi ci xaar ñëpp Grand Monte Everest xale bi nga xamante ne moo xew si jamono mën bés lool canal social kooku boo ko séenee mooy dem bu laaj fa mu jëm ci jàmm rek lay dox Grand Monte Everest mbokk yi bésu tam xarit la nuit du waaye nag duñu teree wax le deux incha allah rabbi kenn du ko fàtte kenn du ko fàtte le 2 juillet suñu bés boobu mode tabaski xale bi am jombi bi Ismaïla Ndoye xale bi ambitieux l'incontournable l'irrésistible laa koy wooyee moom Ismaïla Ndoye sang maa ngi lay nuyu sant rek. waaye sant rek rek. bañ lu neex. yow waaw yow saa yow. <laughs> mais lii mooy Médina. lii mooy Médina lii lañ xam ñun lii lañ xam Médina bu xewee ñëppay génn. waaw mag ak ndaw ñun daal saa lii lañ xam ne dinaa rek amee mën naa la waaw yokk ak ndam rek yàlla nañu yàlla yàlla yàlla may ndam non Modou moom dafa nekk booy boo xam ne nekk si koñ bi boobu yaru xam nga respecté ñëpp jox ñëpp gëddam ñun ñi sax sa waay man locataire laa côté bi mais côté bee laa dëkkee yow xam nga fi ma dëkk mais xam nga mais man maak moom koñ bi fii daal jàmm la fi wane te nitu jàmm xam nga lu mun bu nekkee nitu tam dañ koy wax mais nitu jàmm la xam nga weeru koor jot si propre moyen lay génnee di jox nit ñi ay ndogu xam nga loolu tamit dañu koy rafetlu te yàlla yaa lu mu si li fii fi mu teg tànkam nii nii nii yàlla na ko yàlla defal ay xéwal lu jeex yàlla na yàlla ni nekk ay ndam yu bari si moom yàlla na am ndam. waaw dama yëg non dama gis xale yi mas waaw daa xool sedd parce que lii moom saa yi ñun dama gis ni dama dama retrouvé man ma nekkee xale dama ne tubaab joor bu muy bëre tubaab joor bu muy bëre nag ñun boo ñu nekk ay xale bu ñii lañ daan ñëw nekk ay booy ndaw mu ñuy jox ay saraxam ñu koy lekk loolu laa gisaat ni si booy yi. lii mooy Médina waaw lii mooy ngeen gis xam ngeen ko ci chaîne bi mooy waa ji nga xamante ne moo faroon xale bi fii defar lu baax na waajee. waaw naaw moo yor moom sama waay sama xekkil sama lépp la ma ne ko ñaan bés bi am ndam moom bii laa wala laa bëgg si moom mu am ndam. barke sama lépp ñoo ànd ñooy fowandoo ñooy defal lépp si seen soto mais Aliou daa mel ni bés bi yaa ko yor xale yi dañ la ba xale sama xale yi sama waay lañ la xale yi ñoo bëgg seen bopp ga gaañaa ngay añ te ñun añaguñu Saliou Saliou añ te ñun waaw lañ naan suul ker du feeñ biir bu xiifee jooy laaj Saliou waaye nee na du ma fàtte suma frère El Hadj Dame Ndiaye Sipion joyeux anniversaire happy birthday la Médina TV vous souhaite joyeux anniversaire yàlla yàlla guddal sa fan may la wér sàmm la aar la ci barkante bi sallallahu alayhi wa ngay xale bu yaru ku baax Dame Médina dañu lay bége di ndamoo di sago di la tiitaroo yow sakk nga sunu biir alaaji daam am nga yar lool yàlla yàlla defal la jàmm ñi ngi lay ñi ñi ngi lay ñaanal sunu xol lañ ko tibbee waaye surtout PDG Alaaji Saliou sek mu baax mi moom it yàlla yàlla sàmm ko mi ngi lay ñaanal bu baax yàlla taxawu la ndax fi ngeen bëgg a yóbbu Medina sunu sunu borom yeggali yéen yi Alaaji Daam Njaay Cyprien mu baax mi li ñuy def yow la ñuy xool saa bu ñu la xoolee rek loo def ñu def ko kàkkatar nga garab goo laal rek nduróog moom daam fépp nga ma ne sama waaj ji ala dem alaaji Dame Ndiaye Sipion mi ngi noonu gars yi sama waaj sama rakk ji alaaji Baye Fall mu baax bi moom frère moom frère kooku suma rakk la suma xarit la moom daf ñuy bége daf ñuy bége moom di xale bu am yar fonk nu di nu bëggee di nu yokk jom nag bokk na ci xale yi nga xamante ne ñoo ñuy yokk jom Médina la ñu am daam Baye Fall yi Médina la ñu am Médina la ñuy sagoo suñu lépp Médina la démb ñi ngi tëdd 4 heures du matin nekk ci liggéey xëyaat suba tey nekkaat ci naaj bi waaye Médina la ñun mënu ñoo fay Médina ndax bu nu doxee ñu xàmme ñu Médina woo tax bu nu ñu bëggee Médina woo tax fu nu dem ñu respecté ñu Médina woo tax kon affaire yi Médina la alaaji daam kii mi ngi noonu ñoo ngi yéggalu ci dog-dog boobu lépp rek ngir ngeen am li fi xew yëpp am ko ci amin bu jaar yoon moo tax saay bu ñu xëyee rek ci loolu la ñuy dox ngir gën a améliorer liggéey bi génnee ñu leen di a kaale te boobu kaale kaale mel ni ñi ngi xaar dafa mel ni mbër mooy waaj a génn mbokk yi li fi nekk tey ci mbooloo lii mooy mbër demal rek andil ñu ndam bàyyi ñu ñaan mag ñaa ngay ñaan xale yaa ngay ñaan

mbokk yi léeg ngeen dégg ma léeg-léeg du ngeen ma dégg naaj bi xaw a tàng moo tax léeg ngeen dégguñu léeg-léeg du ngeen ñu dégg ngeen jàpp ne rek naaj bee tàng waaye ñu ngi xaar champion Modou may ko ndam champion yi mag yëpp ñi ngi fi waaye di ñaanal suñu beneen doom muy Ada Fass di ko ñaanal moom it ci bés boobu mu jëm suñu borom defal ko ndam ak mbooleem ku fi nekk rek te ndam yàlla na la ko yàlla defal mbokk yi ñi ngi xaarandiku mi ngi mel ni mbër mi ngi waaj mi ngi mel ni mi ngi waaj mi ngi mel ni mi ngi waaj mbokk yi yéen ñi ñu seetaan bi yàgg na waaye ñu ngi leen di jégalu bu baax xam ne rek li ngeen bëgg loolu la ñu bëgg ni ngeen ko bëggee noonu lañ ko bëggee fa ngeen ñu yebal rek ñu dem lu ngeen bëgg ñu defal lañ ko La Médina TV gis ngeen coach ngi noonu taxaw ak Ada ngi noonu taxaw di xaar mu mel ni moolu dey waaj a génn dafay waaj a génn xale yi dafa mel ni seen dafa tàng ña ngay mbokk yi mi ngi noonu moment yi moment yi doy waar la ci làmb moment yi doy waar la mbër buy waaj a génn bàyyi fi yaay bàyyi fi pap bàyyi fi rak war a dem wuti ndam ñoo ngi doon waaj ay at Covid bi ñëw empêché làmb ji am ba tey la ko yàlla dogal. mbokk yi làmbaa ngi noonu tey gis ngeen fi lu ñu mës a gis sabar bu ñu jël di ko mar jël galeñ ba ñaan ci dóor si damay wax ni gis naa tey lu ma mës a gis waaye nee nañ ma nee nañu ma làmbaa ngi noonu nag làmbaa ngi noonu mbokk yi mi ngi noonu génne nañu picc ya nañu picc ya dafa mel ni mbër a ngi ñëw génne nañu picc dafa mel ni mbër a ngi ñëw yéegal nañ ña yéegal bagage yi xamuñu xamuñu làmb noonu nag waa xam nañu li yëpp ci cubukaay yi la jëm xorom ba na furno ba yéeg na mbokk yi mi ngi noonu mi ngi noonu mi ngi noonu cey lamb mu mel ni mbër a ngi waaj mi ngi mi ngi mel ni mbër a ngi waaj ña yéegal bagage ña nga yéegal bagage cey làmb gaañaa ngay dugg seen nañu jiili jiili bu faas ma ngi noonu dugg mbokk yi léeg ngeen dégg léeg-léeg du ngeen ma dégg boo amee rek ngeen jàpp naaj bi la boo amee ngeen jàpp naaj wi la moog liggéey bee ànd léeg ngeen dégguñ léeg-léeg du ngeen ñu dégg Alaaji ci làmb ngay gisee lu ne Alaaji Saliou dafa mel ni lee may gis si oto bi dafa mel ni picc ay picc yu njël la dugal seen kaaf. ci lamb ci lamb nga gisee lu ne xorom nañu oto bi sànq yi jël nañu ay picc dugal ci bi cey mbokk yi gaa yaa ngay xaar kaar yi taxaw nañu moto yi taxaw nañu am di jàmm yi njàccaar ak li kenn desul ngir fas yéene gunge seen doom Mor wax naa la sànq ne la seere yi bari nañ ci moom xale bu yaakaar bokk ci yaakaari làmb Medina yaakaar ko lool moo taxit ñi ngi ñaan sunu borom may ko ndam bu ko amee ndamal Medina la waaye ndamal Ndakaaru la. waaw coach yaa bëgg ay bay